maire buñ ko élire ak ay suffrage bu tuuti nañu teel a jóg voté massivement mu raw gaay yi ba pënd seen maa ngi santaat di gërëm merci beaucoup. jërëjëf na maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di am mbégte boo xam ne xam nañu fu tàmbalee waaye xamuñu fu mu yem. maa ngi nuyu waa coalition Benno Bokk Yaakaar may nuyu mboolem góor jigéen mag ndaw xale yoo xam ne teew nañu fii tey may beral nuyoo sama waa koñ waa Sicap Liberté 2 waaye du tere maa ngi nuyu waa Liberté 1 maa ngi nuyu waa Liberté maa ngi nuyu waa Liberté 4 maa ngi nuyu waa Liberté 5 maa ngi nuyu waa Liberté 6 waa Liberté 6 extension waa Baraka waa Kambi yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu bàyyiwuma kenn waaye surtu surtout maa ngi nuyu la jeunesse le 29 juin 2014 dama taxawoon fii ma taxaw ci xolu Sicap ànd ak bëgg bu xóot bu sore ci man ñëw ne waa Sicap maa ngi leen di laaj seen baat bu ngeen fàttalikoo le 29 juin 2014 moo doon les élections municipales ma ñëw waxtaan ak population waa Sicap ñu xamal ma ne suñu doom nga fii nga dëkk way bi ngay way neex na lool waaye li ñuy xaar ci suñu doom mooy mu nekkal ñu nekkal suñuy soxla nekkal suñuy aajo am loo xam ne mën na ko indil ci biir gox bi ma ne nag kon baax na dinaa dem réviser sama leçon te juróomi at a ngi nii maa ngi jàng tey bésu tari moo jot juróomi at maa ngi wër gox goxaatu Sicap Liberté yi xool lan la xale yi soxla xool lan la mag yi soxla xool lan la jigéen ñi soxla xool lan la góor ñi soxla xool ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu koom-koom lan lañu ñu soxla ba ñu ko nattee xayma ko maa ngi taxawaat tey fii ci seen kanam ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar mu gën a soriti lool sama xol di leen laaj seen suffrage au soir du 23 janvier 2022 waxtaan naak yéen déglu naa leen saafonte nañu bokk nañu àndandoor xool liy metti ci suñu gox bi tënk nañ ko ci juróomi ponk nee nañ ma Zahra soxla nañ nga xool jàngu xale yi xoolal école primaire yi xoolal suñu doom yi ni ñu nekkee ci école yi xoolal environnement école yi mais surtout dimbaleel njaboot gi ndax affaire bi xaw na diis tuuti xoolal nooy gunge xale yi nekk primaire ci école yi ma ne leen danaa ci taxaw te danaa def lu raw taxaw nee nañ xool formation bi dinañ ko xool nañu xool xëyu ndaw yi dinañ ko xool ma ne kon loolu mooy nekk suñu premier point ci suñu programme dinañ gunge école primaire yi dinañ gunge formation professionnel bi dinañ gunge xëyu daw yi ñu ne ma bu ñu yem foofu nañu xool la gestion du cadre de vie suñu gox-goxaat yi Sicap na mu meloon démb royukaay la woon ñépp ko doon seetaan Alébourg gi bàyyi rafet lool boo leen xoolee suñu jardin yi yëpp ñu am xam ne fii am na environnement bu ñu bëgg dinañ def de Sicap Liberté une commune de référence gis ngeen ñi jël parole tour à tour ci micro bi ay xale yu ndaw a ndaw a ndaw ay xale yu bees tàq ay xale yoo xam ne seen xel day màcc dañoo bees ñooñu lañu fas yeeni indi ci biir commune bi ànd ak l'expérience et l'expertise des aînés ndax sikaab noonu la benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar kon dinañ xool la gestion du cadre de vie moo xam ci wàllu aménagement moo xam ci wàllu assainissement moo xam ci wàllu gestion des lieux de culte moo xam ci wàllu environnement moo xam ci wàllu sécurité mais du ñu yem foofu ndax ñépp xam nañ ne jigéen ñi ñoo yor koom réew mi jigéen ñi ñoo yor njaboot gi kon danañu taxawu jigéen ñi l'entrepreneuriat des femmes et des catégories socio-professionnelles dina am pàcc bu am solo ci suñu programme wér gi yaram taxawu suñu mag ñi taxawu suñu papa yi taxawu suñu njaboot gi moo tax première action bi nga xam ne incha allah moom la ñuy def bu ñu duggee ci bâtiment bi ci sama gannaaw bu ñu duggee ci bâtiment bi la mairie 5000 de sécurité dinañ ko fi teg pour suñu parents yi waaye dinañu xool culture bi dinañu xool sport bi dinañu xool loisir bi kon foog ñu xool stade Demba Diop am na nag am na ñoo xam ne dañu ne ministre nekk na ministre ba pare kon na bàyyi ñeneen ñi nekk maire waaye duma ko def ndax man Sicap ma ñor ba ñuy commencé liggéey Sicap xel rek lañu ñu amoon ñu jël xel yi boole kook suñu baaraam yii bi ñu jëlee xel yi boole kook suñu baaraam yi jël suñu tànk yii boole ci jël suñu jàmbaar jël suñu ñaq jël suñu yéene di dox tepp tepp ngir defar Sicap ku xam Kalidou Dieng xam jeunesse bi doon ànd ak ñoom ngeen xam ne yàgg nañu liggéey fii biir Sicap liggéey boobu dañ ko tàmbali mais dafa matagul dañ ko fas yéene matal ndax li tax ñu fas yéene ko matal mooy dañu am président bu ñu teg ci yoon muy le président Macky Sall ñëpp xam nañu liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci réew mi xanaa ku bëggut gis waaye ku bëgg gis bëgg sa réew am ambition pour sa réew di nga xam ne depuis 2012 yokkute am na ci réew mi moo xam ci wàllu courant la moo xam ci wàllu mbay mi la moo xam ci wàllu santé bi la moo xam ci wàllu éducation bi la mais surtout yokkute am na ci équité territoriale tey booy génn dakaar di dem ci yeneen région yi sa xol day sedd ndax infrastructure yi am fii ñi ngi koy tabax ci biir réew mi kon bu ñu dee doomu gox bi doomu gox bu ne bu taxawalee goxam dama ne ñun ñëpp dinañ taxawal Sénégal kon waa Sicap Liberté maa ngi leen di woo ci ñu àndandoor taxawal Sicap Liberté ndax li fi xew SICAP musu koo am dem ba toll ci ñu am ndomba tànk yoo xam ne permettre nañu ñu mën a taxawal Sénégal mais permettre nañu surtout ñu mën a taxawal suñu gox bi muy SICAP ndax ñëpp xam nañ ne waa SICAP pour nga yëkkati leen ci politique c'est très difficile mais tey waxuma la mag ñi waxuma la jigéen ñi waxuma la entrepreneur yi mais ndaw yi ci seen bopp ñoo jug c'est la jeunesse de SICAP Liberté tous c'est la jeunesse de SICAP Liberté qui est debout debout avec l'espoir debout avec la conviction qu'on peut faire mieux et plus pour notre commune debout avec le ministre maire Zahra Iyane accompagné de ses vaillants membres de la coalition Benno Bokk Oui, population de SICAP, nous serons là pour les enfants, nu serons la pour la jeunesse, mais nu serons surtout la pour notre commune. te nag coow li coow li bu kenn yàkkamti nañ ko def ndànk-ndànk ku wóolu sa bopp ku xam fooy teg sa tànk ku jàpp ne dangay nelaw ba yandoor tëb tiit ci ay nelaw ne damay ñëw maa mën dama ne dinga ma fi fekk ndax duma nangu ko yàq fii Sicap kenn du ko yàq danaa taxaw gauche danaa taxaw droite ndax daf ma wóor ne dama dul wéet ci yoon bi duñ ci wéet moo tax ma ne tey lañu départ dinañ départ xotti Sicap jaar Bourguiba jël yoonu Castor dem ba Patte d'Oie jubal biir Yoff fekk fa le ministre Ablaye Diouf Sarr yéenu ko ànd ak moom jël autoroute bi di daw ba ville de Dakar li tax ñuy def loolu mooy dañu jàpp ne Benno Bokk Yaakaar dafa war a am 20 sur 20 yi nga xam ne moo nekk ci biir dakaar Benno Bokk Yaakaar daf ko war a gañe bu gagné loolu ba pare gagné ville de Dakar ndax nag Dakar est la capitale Dakar est la convoitée Dakar est la belle Dakar est la mère des batailles mais Dakar sera la conquise par Benno Bokk Yakaar car nous devons faire de notre capitale une référence et nous pouvons réaliser cela avec le ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui ambitionne de faire de Dakar un hub économique où les femmes y trouveront leur place, où le secteur informel y trouvera sa place, où les jeunes y trouveront leur place, mais où surtout nous aurons une capitale où il fera bon vivre dañu ci maaj fu ñu tourné ne ñu kaay ñu maaj ñu dem place de l'obélisque fu ñu tourné ñu ne sànni leen xeer loolu lañu ñu tàyyi dañu nekk ci jamono joo xam ne dañu bëgg liggéey ci jàmm ak salaam ndax lii ñu def fii tey jàmm rek ko ko mën a maye bu jàmm amul woon duñu toog fii di waxtaan di foo di ree di seet lu mën a jëmale suñu réew kanam kon nag maa ngi ñaan acteur politique yépp ñu xam ne tàmbali bii ñu tàmbali campagne électorale bi du campagne ñu soxante du campagne ñu waxante lu ñaaw du campagne yu dóorante campagne ñu xel la na ku nekk wax sa programme ci jàmm ak salaam ku taseeg sa moroom nga jàdd wala nga may ko mu jàll su pare ñu bàyyi population au soir du 23 janvier 2022 ñu wax seen scrutin def seen choix te choix bi benn la Sicap dégg jàmm ànd ak coalition Benno Bokk Yaakaar teg ndam li suñu loxo ñu defar suñu commune indi la renouveau kenn ku ne gis ci sa bopp maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax nag na ngeen ma xaar maa ngi ñëw liberté maa ngi ñëw liberté maa ngi ñëw liberté 3 maa ngi ñëw liberté nag te nag bu ma demee Liberté 1 danaa fa jël sama caabi ndax caabi yi